su ko defee <clears throat> waaw kañ jërëjëf waaye waa kañ yàlla buur la waaye bokkut ak buur yi dama ne yàlla am na ñeenti martaba yoo xam ne benn buur mënu ko ci fekk yàlla xam na lépp ba dara réeru ku ko ci fekk yàlla mën na lépp ba tëliwu dara ku ko ci fekk xam na lépp ba dara réerul ko am na lépp nag ba mu ñàkku dara sañ na lépp ba ragalu dara wa in min shay'in illa indana xasaa'inuhu wa maa nunazziluhu illa bi qadrin ma'luum yàlla nee loo gis moom ay magasin la ci te mànga magasin yooyu daf koy détaillé waaye du jeex déedéet gëm nag li mbokk li koy taxawal mooy gëm alquran daf ne inna harna al amaanata ala samawati wal ard wal jibaali fa na an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa hamala al insaanu innahu kaana zaluman jahula waaye la ci tegee neexul yusibul munafiqina yàlla bi mu dafa jël rahmaani turu mbokk la jël rahim de turam mu xotti ci def ko muy mbokk mu ne nag nañ ma ragal te mbokk ci boppam kóolëre yàlla la yàlla jël kóolëre googu ne suuf juróom-ñaar jox naa leen kóolëre mbokk suuf ni ñemewuñ attanuñ ko asamaan juróom-ñaar ne ñemewuñ waaye saq na minha ñu ragal ngir responsabilité ba nga xam ne mu ngi ci wax amalal insaan doomu aadama nangu li tax nag mu nangu lam yenu xamut ko bu ko xamoon ci asal du ko yenu ndax xel mi yàlla ngëm gi yàlla jox doomu aadama ko amul ngëm-ngëm mënoo toppatoo mënoo def li yàlla wax ci mbokk arab daf ni aqaaka aqaaka inna man la aqan lahu ka lil ay jaa yi bi dooni si laa jàppal sa mbokk jàppal sa mbokk mi koo xam ni amul mbokk mu ngi mel ni ku xëy dem ci benn guerre feteel yaag yépp te amul dara nee na noonu la mel waaye doomu aadama du ñàkk mbokk déedéet gisagu ngeen ku ñàkk mbokk man da nekk waaye nit dana am mbokk te amul mbokk loolu mooy deme nit dana am mbokk te amul mbokk wala ñi amul mbokk ci place sax tane ko fa yonent foofu dafa am lu mu fi wax sallallahu alayhi wa sallam unsur aqaaka zaliman aw masluman dimbaleel sa mbokk mi bu tooñee dimbale ko buñ ko tooñee dimbale ko saaba yi ne ko yaa rasulullah mbokk miñ tooñ xam nañ nan lañ koy dimbalee waaye mbokk mi nga xam ne nag moom dafa tooñ nan lañ koy dimbalee mu ne mbokk mi tooñ dañ koy delloo ci yàlla xamal ne ko tooñ baaxut ndax bu ba ay wiir tàkkee du yem ci moom alquran moo ñu ko jàngal wattaqoo na ngeen ragal fitnatan fitna laa tusiibanna lazina salamu minkum xaasatan ñi ko taal du yem ci ñoom dana jàll ci ñoom dana jàll dem ci mbokk gi dana jàll ba tasaaroo ci réew ñu ne kon mbokk mi alquran yonent bi lim la digal na ko dimbali bu tooñee dimbale ko buñ ko tooñee dimbale ko buñ ko tooñee na koy dimbalee muñ loo ko sakkul ci moom njéggal bu fekkee nag moo tooñ laaxe ko biir waaye laay biir nag ñaar la am na laay biir goo xam ne dafay taal safara ndax sa mbokk mi tooñ nga taxaw ci digg mbooloo ne ko yaa ko tooñ mën nay taal leneen sa diggante ak moom man na mu tontu la loo xam ne diggante moo ki am na problème sa diggante moom problème dugg alquran moom rek a waaye odoo ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhisatil hasanati wa jaadilhum billati hiya ahsan léegi hakim doomu aadama dafa war am hikma nit dafa yàlla daf ko bind jox xel ndax bi yàlla bindee doomu aadama daf ko dem muy ab gouvernement roo gi nekk chef de l'état bi xel mi nekk secrétaire bi lu ci des cër yi nekk ci doomu aadama ñoo nekk sécurité bi waaw waali dégg nga li ma ci doomu aadama roo gi mooy président de la république xel mi ci boppam mooy secrétaire biy bind mu ne nag roxo gi ne man mënuma nekk président de la république te amul sécurité yàlla ne ko loxo yaa ngoog bët a boppa ngoog tànk ngoog ndigg a ngoog gémmiñ doomu aadama léegoo léeg am na sécurité bu ñoox loxo léegoo léeg li koy musal doomu aadama léegoo léeg sëgg koy musal léegoo-léeg tëdd koy musal léegoo-léeg gémmiñ moo koy musal léegoo-léeg tànk yi moo koy musal léegoo-léeg ndigg li musal ko dafay waaf kooku muy doomu aadama mbokk mi nag dafa am noo koy digalee fexeel ba dem ak moom beneen palaas diw mu ne ah mu ne ko tooñ baaxul te na la wóor ne kii lii dox seen diggante yaa ko tooñ kee mooy mbokk yu woo ko ne ko xam nañ ne moo la tooñ waaye jéggal ko ndax mbokk gu yàqu baaxut te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari mbokk yoo xam ne dogoon nañ lu ëpp ñetti fan te mbir ma du dara lu mooy mbiram àddina kenn dootu ci julli lu yàlla soxla kon moo tax thème bi ñu tànn ko tey dogoog sa mbokk ñetti fan ci loo xam ne mbiru àddina rek la la ngaa yàlla du ko nangu moom it la moo julli yàlla du ko nangu kon moo tax mu ne àqaaka àqaaka sa mbokk mi dimbale ko bu tooñee wax ko dëgg suñ ko tooñee laaj ko yërmande waaye nag ñaara ngi ñaari mbokk ngi neexu ñooy dimbale mbokk mi bari xaalis lool te xam-xam ba bariwut at yi néew neexu da wax dëgg buur yi neexu da wax dëgg kon jéey yu bare ngay dikk te xaalis ñetti rek la mbokk mi bu tooñee te am xaalis wax ko dëgg ñett a nekk seen kanam benn nga am fekki ko walla mu ñàkk fekk si la wala mu yéen ñëpp ngeen dee mocc ko fi kon xel moomu le yàlla def ko jël def ci nag nit ñaar kii mooy sëfoor bi kii mooy client bi xel ci boppam mooy sëfoor bi xol mooy ki ñoo yóbbaale boo jiitalee xel xol tegee ci dafay baax waaye bu xol jiitoo àttanul xel dégg nga li ma la wax xolaatanum xel de déedéet nabil Moustapha nee na alxalaalu bayinun Cheikh Waly alxalaalu li dagaan mu ne ñëpp xam nañ ko wal xaraamu bayin li dagan ñépp xam li xam nañ ko li dagan ñëpp xam nañ ko nan la koy xamee mag lépp lu mooy def te bëggul mag ni moom fekk ko ca xam na ne baaxul ah? mag lu mooy def te bëgg ñépp fekk ko ca xam na ne baax na ba tey ji beneen prix mag lépp lu mooy def di ko nëbbu baaxul lépp lu mooy def te bëgg ñu fekk ko ca baax na te loolu xol bi lay doon yonent bi nee na li dagan xam nañ ko li araam xam nañ ko diggante bi nag am na lu ci nekk loo xam ni dafa lënt ñii dagan na ñii ne araam na waaye nee na li lënt su fekkee ne moy nga ko danga ragg sa der bi sa diine danga ko raxas boo ca tàbbee nag ci li lënt yaa ngi mel ni ku jël sa gàtt di ko sàmm ci pegg ci pegg kàmb man nañ ca tàbbi de am na nag doomu aadama cër bu nekk ci moom bu baaxee doomu aadama bi baax su bonee doomu aadama bi bon àlla waxiyal xalb mooy lumb boobu nga xam ni su baaxee lépp baax waaye xel mi ci boppam mooy xam li jaadu sotti ko ci xol bi xol bi gëm xol boobu su gëmee mbokk taxaw ndax bu sooboon yàlla mu indee ndoor mu di indi te du ko jaarale ci ndeeg bàyyi waaye la tax mu jaarale ko foofu bu yërmande dàqoo musibaam yërmande bu dàqoo njégale du mën a am yërmande bu dàqoo dimbalante du mën a am te yërmande dafay dugal doomu aadama aljana ndax am na benn waay boo xam ne hadis wa rasul bu wér benn xaj bu mar ba di bëgg a dee moom la gis summi dàllam dugg ci biir teen tànq ca jox ko xar moo xaj boobu bi mu ko naanee yërmande gi mu ko yërëm yàlla nag tax ne ko man dama bind yërmande mu nekk téeméeri xaaj ma jël benn bi dencal ko suma bopp bi dañ jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent denc ko benn bi ma denceel ko ma ma denc ma yóbbu ko ci àddina doomu aadama yi di ci yërmante kon ngeen xam ne yàlla arhamu rahimin bindul jaam ñi déedéet pour mu lakk leen def leen bind pour mu yërëm leen waaye jamaanu ji ñu toll nag wax ci dëgg borom xaalis ak wax ci dëgg buur jafe na te mbokk gi suñ waxante wu dëgg mbokk gi yàqu yàlla nee na <clears throat> inna xalaxnaakum min sakarin wa unsa nee na toqoo rabbakum allasi xalaxakum min nafsin wahida yàlla bin bindee aadama daa ñu joxe rek te noppi jigéen ñi ñooy mbokki góor ñi wali anisaau shaqaiqu rijaali jigéen ñi ñooy mbokki góor ñi ndax aadama bi ko yàlla bindee ba rof ci moom roxo aadama def ko ni wéet naa gisuma kenn mu rocc ci faaru càmmooy ji bind ko muy awaa mu ne ko kii mooy sa wéttal anisaau shaqaiqu rijaali jigéen ñi ci boppam nag ñëw de mbokki góor ñi wa jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan yàlla jël yërmande ak cofeel jaarale ko ci diggante bi cofeel ak yërmande mooy doxal ak mbokk su fekkee lool amut mbokk du am mbokkoo nag mbokk ak julit julit boo gis sa mbokk la boo am dëkk bi nag ñett moo fi nekk ñett ñett moo war ci dëkk ñett dëkk ñetti mbokk fa nekk borom dëkk bii yéen a bokk mbokk bi yéen bokk diine ji yéen bokk dëkk bi ñetti àq yooyu war nga ko koy sàmm kii yéen a bokk diine ji yéen bokk dëkk bi waaye deret ji bokk leen ko ñaari àq yooyu sàmmal ko kii yéen bokk dëkk bi bokk leen diina bokk leen deret waaye sàmmi àq mbokk gi nga dem ba ci jaar dëkkandoor du alxuraan wax na jaar dëkkandoor ba ci ñeent fukki kër kim dox sa diggante ak yow dëkkandoor la yàlla ne na nga sàmm àq ba palanteer doo ko tijji mu jubloo mu jubloo këram yonent bi nee na palanteer bi nga def ci sa kër benn waay ñëw de ko yurnu nga sànni ko ay bëtam foq doo ko diya kon kooku benn àq nga ko xamel àqi dëkk àqi dëkk bi nga amel ko ñaari àq kee nga amel ko ñetti àq foofu la innamal mu'minuna ixwatun taxaw julli yëpp ay mbokk lañ bi nga demee Màkka xamante nga fa ak ñoo xam ne dootoo gis ak ñoom sori na yàlla nag ne jigéen ñii ñooy mbokki góor ñi te mbokk wattaqullaha allasi tasaaluna bii ragal leen yàlla mii nga xam ne ci moom ngeen di ñaanantee njekk sa mbokk mi am na lu mu def am na ku ko tooñ mu ne duma ko ko baal nga ne ko ñaan naa la ko loo caay teg waali ñaan naa la ko mu bañ nga ne loo caay teg ñaan naa la ko ngir yàlla loo caay teg jërëjëf ñaan naa la ci ngir mbokk mu ne wattaqoo na ngeen ragal allah yàlla la yàlla ma nga xam ni tasaaloon da ngeen di ñaanatee njëkk bii ci moom ñaan naa ko ngir yàlla ñaan ko ngir mbokk mbokk yàlla xaree ko ci aw turam wàccee ko fii ci kaw nit nee na aljana doxu juróomi téeméeri at képp ku ko yéese aljana parfon yi ci aljana dañ la ba nga daanu ci suuf waaye kii doog mbokk mu ne xeeñ googu du ko xeeñ allahu kon te dajee bii mbokk moo ko waral ndax ñëw naa fii daaw ñu jox ma décoration mu bàyyi ko Banjul ñoo xam ne fii lañ dëkk yàlla dogal seen war sax mu def ko Banjul daaw photo boobu ñu indiwoon fii dañ ma ne bu waa Banjul ñoo ko indi barki démb bi nga yendoo kër soose fekk nga fa waa Banjul am nañ fa ñetti fan ñooñoo njëkk a sottal togg te bu ñoo ñëw dañ sëfaali seen lu ko waral mbokk te mbokk googu yéen ñi dox ci ak waa Banjul yi dox ci ba ngeen gindandikoo kenn ku ci nekk la la yàlla defay doo ko xam léegi te mbokk googu moo jur bés bii te bés bi dafa am ñaar yu ci ne nag te xamu dem ko waa bés bi xam nga tey ñi sant Cissé ak Dramé ak Touré yandu ci dëkk bi de lekk ay ganaar ak ay nag yu baax ak ay xar yu mis wi ñoom am nañ kontante waaye boo demee fee ci biir suuf ci sëg yee ñoo ñu ëpp kontante a wax de ñu jàng wala sina amanu wa tabaxatum suriyatum bi imanin alhaqna bihim suriyatihim wa ma alladnahum min hamalin min shay'in kullu imrin bi ma kasaba rahin yow mi doon jàng alquran léegi dégg de kilifa gu baax bénéfice la wàcc fi doom ju baax bénéfice la te loolu yow mbokk moo ko waral ñi nga xam ne dem nañ doon jaamu yàlla ba yàlla gërëm leen muy ñee nekk ci sëg yi buñ demee ba yàlla baax leen kenn ci njaboot gi fekk leen manqué leen ñu jël ci seen lu baax la mottali njaboot gi te moom lu baax loola mu jox leen du manqué ci losam ndax pay ak àllaaxira mel mu ngi mel ni jël sondeel taal ko ci sondeel buy tàkk lu mu wàññi ci sondeel buy tàkk du ca wàññi dara su ko defee wa ma àll naaw min amalim min shay'in jaa mottali ga ñooy mottali doom yi du wàññi ci seen jëf dara doomu aadama yi tamit dana dem barsàq man lexul doom jëm fa wëcc wallaay benn kaamil su ngeen xamoon li mooy def benn kaamil tey sëg yee ci jëñal tey benn kaamil su ngeen ci yemoon mënuñ koo jeexal Sénégal mënuñ ko jeexal li kulli li kulli harfi min hasru hasanatin ma qultu bismi harfun baau harfun siin harfun miim harfun wa kullu harfin law asru asanat wa kullu asanatin tam la uma bayna samaai wal ardi boo ne bismi ñetti araf la am nga fanweeri tiyaaboo benn bu ci nekk boo koy sarse ci suuf ak samaan du ci xaj kon nag tey bu njëloon ay miss bi teg ko fii ba Dakar dalee ko Casamance de ko teg ba Dakar ne ñeent def tëb sag yi yéen lañ ko teral reer daf leen di jàpp na xam du luñ mën a jeexal waaye la ca des nag loo jëfal ko faatu dañ ko ko jox jël lu tollu noonu dencal la ko kon bés bi bés bu am solo la ana moo ko waral du mbokk moo ko waral ña bàyyi ko Banjul ñoo bokk fii ci bés bi lu ko waral mbokk mbokk googu nag baax na baax goo xam ne yàlla fi mu ne nii moom xam na diggante fii ak Banjul diggante fii ak Dakar boo ko doon dox xam na ñaata jéego la moom xam na ko moo xam yaa dugg avion moo xam yaa kii waaye moom xam na ko tànk boo yëkkati ci kaw daraja la nga teg ko ci suuf si mu nekk bàkkaar buñ la jéggal te kenn ku nekk am na soxla ci njégal ko bàkkaar kon mbooloo yu mel nii tey biñ toogee fii Sénégal buñ indiwoon li fi arme ñu sécurité mbooloo mi fekk na buur mu mag bi moom sécurité na malaa'ikullaahi laa sirtu minal kurama xafat bi jam hiku moo tuwaali man adaru yàlla am na ay malaaka yoo xam ne moom service bi mu leen teg bu bët sete dañoo wër di féey ci kaw di féey ci kaw palaas yi nga xam ne ci la ñooy doxalee ak mbokk da ci def ay conférence da ci gàmm palaas yooyu malaaka yi buñ ko séenee rek daal di ñëw yàlla ne leen aha yéen sécurité bi seen mbagg yi la ñoo tëral fii firi ko ba ci kaw asamaan kon mu ne tuubaa li man adaru texe ñi yàlla ñi nga xam ne dañoo fekkee jotaay yi délégation maire. waaw wax nga dëgg tasaraf naa bikum entre li arab de wax yaa day fanaa law surtanaa la wajattanaa naanu du yóofu anta rabbul man sili wax naa lool ci kaa ci lam ñu borom dëkk yow suñ gan gi bés boo ñu fekkee jëñal siyaari siñu bii nga duggee ci tànt bi yaa borom dëkk bi yow ñun ñooy gan ñooy waay ñooy dalal kon boobu loolu lañ leen de wax doy na de yaa day fanaa law surtanaa la wajattanaa nanu du yoofu wanta rëbbul man sili jëli su malikin dañ am cër de lam yakun mutaaddiban taridun salilun saaxirun ajibu yàlla dafa ñaari tur bii tudd alimun mu jox ko borom xam-xam yi bii tudd malikun mu jox ko buur yi kenn ku ci nekk bu wàllam jotee nañ ko ko jox ki toogaaleeg buur te joxul ko cëram bankal sa baaraam tariidun ku ñëw dàq la saliidun toroxal ko saaxirun tuutil ko ajibun te dootu ko gis ah, su ko defee eh, Hajjaaj ibnu Yusufa nekkoon na buur bu garaaw ci Irak toogoon na ba mu yàgg mu ne inni la araadu uusan xad ay naa at wa haana waxtu xitaafuha wa inni la saayibuha mu ne gis naa boppi nit ñi dafa mel ni tàndarma ju ñor ci maa koy wit te bu ko neexee mu def ko de mu xëy benn bés notable yépp mu leen di ëllëg da ngeen ñëw fii ci pale bi kenn ku nekk dana sukk fii suma kanam nen wala ma dagg baatam bañ demee barrière kenn ku ne dee kenn ku ne dee bàttale waaye Abu Nuwaas jàppal tur ku bari xam-xam la abu nuwaas ah, gaañu ne ko ñun suba dañoo dee mu ne yéen xanaa waaye xanaa yéen man di bokkuma ci buur laa buur laa wax buur dañ ma a maslaa buur waaw nii la ñoo ko bokk buur moo fond fond l'islam moo tabax nguur waaye nguur moo koy wattu abu nuwaas leen buur bi ëllëg ñaari procès la wax dañ ko tabaxal pale kaw pale ci kaw ci kaw jago ji te dañ nen ku ko deful mu rey la léegi bi ñëwee mu ne man duma dee ñu ne ko loola tere dee mu ne damaa wut nen ganaar buuxu ku waxi def la sant mu jonkoone ci kanamam de bii jubam yàgg mu toll nen gaay yëpp fekk ko ci bi nen yi bëree mu yëngal yëngal mbagg yi sab sabu seq mu ne ko lii nag mu ne ko gannaaw jigéen ñu toll nii may seq bi nu def dafa bu mbaxana mi root mu dem ñu dem mu ne nag léegi pale bii da ngeen ma ko taxawal tabaxal ci jaww ji ëllëg ba ëllëg jotee bi ñëwee abu nuwas borom xam-xam la woon mu ne ko nag pale kaw tedd na tedd goo xam ne tànk buur képp ko mën a rëdd ku koy rëdd hmm? ku koy rëdd su ko defee mbokk gi nañ ci di wax loo xam ne yàlla daf koy laaj te niñ ci ñaanti ci mbokk yàlla ci boppam noonu la ñooy laajee ndax am na benn waay ci Irak dafa am alal yu bare am benn doomu ndey bu jigéen nanguwul koy defal dara ba yàlla jël ko yóbbu ko fu metti waaye doomu ndey bu jigéen bi eh, Asanul Basri moo joxe benn listixaar ñu gis mbokk mi fu bon waaye dañ ko ne sa mbokk mi nga xam danga ko daggoon sànni ngay regg muy xiif mbugal mi moo la ko teg mbokk ci boppam nañ ko seet mbokk bokk lañ wax pom bi ñoo ko bokk nañ ko seetloo mburu bi ñoo ko bokk nañ ko daggoo ah du mbokk ci baatu olof loolu laay firi kon yàlla ci boppam ba mu bindee bind rasulillahi mu ci nit ñi ko wutal ay mbokk te mbokk nabil Moustapha dundam yépp ah, aju Ousmane ci jàngale mbokk la waaye keroog ba mu faatoo bindam mbokk bu ne dikk na ngeen déglu bindam mbokk boobu ci li waral conférence bi tey nabil Moustapha bi fi bàyyi ko kan moo ko wutu jërëjëf kan moo ko njëkk gëm ci mag ñi nekk ay sotu fu nabil Moustapha faatoo jërëjëf ana fuñ ko denc nekk Aïcha Omar doomam muuru yonent yàlla Muhammad Ousmane may na ko ñaari doomam ñuy faatu mu ne ko buy ëppoon ma di la ko jox koo gën a jege Nabil Moustapha Kéré bi mu faatoo ngeen déglu bindam mbokk mbokk laa wax de ñu déglu kéré ak bindam mbokk léegi faatu na ba pare faatu gi moom dëgg la métti na loolool Babacar dëggal na ko ba ñépp gëm nañ ko mu des na seen kanam fan lañ ko war a denc ak bàmmeelam bi nan la war a mel ak nan lañ ko war a topp tooxee ak liñ koy sàngee nu mu war a toll moo tax mbir mi am na cay booru une ci altine ba alors ba ci guddi lañ ko soog a denc doy na waar foofu nag fi laa bëgg fi laa bëgg fi laa jëm si ci bunta mbokk li tax ma tànn loolu tey léegi ñu ne ab ne ab yonent bu faatoo nuñ ko war a def ñu ne ci penku jàkk ñi ni ci biir jàkk ñi ni yóbbu baytul maqdis Babacar ne ci yàlla Muhammad ñëw na ci hadis ne ab yonent duñ ko toxal boo problème jeex na ñu ne bàmmeel bi nan la war a mel dañooy gas fecc ko wala dañooy reen ca kanam bokk ko foofu ñu ne Medina ñaari gaskati bàmmeel la fi nekk kenn ku njëkk ñëw nañ ko ko jox kii reen ca kanam ñu bokk ko fa kooku moo njëkk ñëw xam nga problème boobu teer léegi nag waajal ko sang ko sang ko moo des Babacar du Quraysh ah kerab bi mu Mustafa bi ñëw biñ koy dencat fekk jaayante ñoo Babacar ba pare waaye waa Màkka ngeen déggati mbokk waa Màkka ñoo taxaw ne mu Mustafa ñun ñoo do xilaa ñoo jël xilaafa gi ci moom ndax muhaajir la ñu nit muhaajir lañ ñun ñu bàyyi ko Makka ànd ak moom xilaafa gi ci ñun lay nekk ndax moom waa Makka la ñun waa Makka la ñooy Quraysh la ñu de Quraysh mbokk gàngoor waa Medina ne ñun muhaajir ñun ansaar ñoo ko dimbale ba def fase suñ jabar yi ñeneen de ko takk ñu génn suñ kër yi ñoo ko war a doon Babacar ne man Babacar nga déglu bu baax de man di Omar laa tànn muy suma candidat ne bi Moustapha ngi tëdd ma ne gu ñoo def dara Omar ne du doon candidat ci kanam baabakar yéen waa Ansar waa Médina ak yéen waa Màkka déglu ma nag wax ji ma jeexal ko dama leen de laaj ci xaqulaahi gannaaw rasulullahi kan mooy deuxième personnalité ci l'islam ñu ne Babacar mu ne alquran li ko dalee ci alif ba ci minal jinnati wan naasi ana kan ci ñun la ci saabaam wér <laughs> wali <laughs> ah. ne kan la ci saabaam wér ñu ne ko woon yow saaba nga mu ne suma saabu wérut is lu ci tegee ah saani is nañ isuma fil xaal is yaqulu ah ne leen kan la ku ko ñaari loon ca kuntuma kon alxuraan ak baaba alxuraan saaba ak Babacar la tudd waaye man tudd suma saaba ñaara ngoog ci Babacar ñette ngoog Babacar moo ko ñaari ci kunt ñeent نبي المتفا بيم تيجي بريمير بريك تيجا كي بابا كار مو كدي سيم نين تنغوك بكو جروميل بابا كار بي فيبر بي فيبر نبي المتفا بيم ميتي بيم ميتي نانا سدو علي جميع القوخات الا قوخات ابي بكر ين سما صحابه يو ماغي بونتي بواد يمالين مايون موي دوغو سما كار فاتلين ديب بام ديس بو بابا كار اما نين لولو موي فيري مونيلين altine ci fajar biñ li xaamee kuñ jiital du man Omar rasulullah bi ko ak xosam ak fadulu roofee tànk de watatu mu ñëw fekk ñu di julli ana nu def man Omar dafa ma xëcc ma dem ca gannaaw mu jël Babacar puus gàppare ko ak tànk yi attuna mu ne leen juróomi garaata ngi Babacar bu ca amoon benn may na ko mu doon rasulullah ndax gis nga Babacar ba mbir ma xewee ji nga Omar la ko ko dal gis ngeen Ousmane la ko dal gis ngeen Aliou la ko dal tànk yaatanut ko Ousmane mënatul a wax Omar dof ana def Babacar moo xuus mbooloo ma ngeen déglu garaatu mbokk de Modou ko Mbaye yaa ngi déglu garaatu mbokk yaa ngi koy déglu bu baax ngeen déglu garaatu mbokk Omar ne ku ko wax ma rey la. taabal ji dese naa xumb de yéen jigéen ñi doon na gën a xumb nii nag xaw xew doon na gën a xumb de taabal ji dese naa xumb yéen jigéen ñi nag yéen a ko doon xumbal bu ñun góor ñi rek dara du sotti. waaw ma ne ren nag mbir mi dafa doy waar génn ci koor de waajal tabaski yombut ren moom ngànt am na ñu ngi génnee ci koor liñ amoon waree nañ te xar yi seer nañ te tabaski ñëw na kon nag na ñaan ñun ñëpp rek fu ma toll woon jërëjëf Babacar moo dem eeg ca minbar ba ne ayyuha naas man kaana yahbudu laaha fa inna la hayyun laa yamuut wa man kaana yahbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qabli rusulu أفإن مات أو قتل انقلبتم على أحقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الساكنين إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قرآن جامو يا الله يا الله جامو محمد محمد دينا فإن محمدا قد مات من الفتل كلين كرك أهود bañ ko reele juróom-ñaar fukk damm bëñam bi xaañ ko mooy sëlma deret ji naan kay fa yuuf doo xawmun xadiboo wacca na bi bi damin ñii nu ñooy texee jël seen xar xanamu yonent fuddanee ko deretam yàlla dafa wàcc ne ko lay sa lakka min am di say un yow Muhammad moomoo nit ñi amoo tax bul fi mere nit ba ne ko yal nga dee de juróom-ñaar fukki nit lañ ko reyal dem nga fa damm bëñam bi képpi mbeñ min soloon ci lañ dóor jaasi ji jaar yu dugg ci biir bopp bi Abu Ubayda tanu jaraa moo ko dindi bim ngànkee dindi sell bi rot mu ngànkaat bële sell bi rot moo tax ñu ne sàkkalu yàlla wi dafa rafetoon taar boo xam ne kenn xamul dégg nga Maalik ibnu Sinaan jël jël jël gémmiñ gi dëpp ko ci dëpp ko ci bopp yónnent bi alayhi salaatu wasalaam mu ci deret ji ba mu jeex siggi bëgg ko tubli ci suuf soo yóbbu de xawee ko de maj maj mu war ko nabil mustafa ne man arada an yansura ila rajulin min ahli jannati fal yansur ila hasa rajulin babacar ne nabil mustafa ke rek wóor la ko yàlla tàggee wa ma muhammadun den nabil mustafa illaa rasulun ndare mu yónnent xad xalat ba paase na min xam ni ci la ko jiitu rusul yónnent ya afa in maata bu feebaree dee ci lalam aw qutila wala ñu rey ko ci jihaad in xalatum ala xaabikum ngeen dellu ci kéefër ku dellu ci kéefër mënaloo yàlla dara gaa yëpp gaa yëpp xiif waaye nag poñe mbokk bi may mujjee mooy càng ga xaaj Ousmane kana dem càng ga kana dem Babacar bokkut ci càng ga de déedéet Babacar bokkut Omar bokkut Ousmane bokkut mu ne nag buñ ma sangee ba sang ma teg ma ci canapé bii na ñëpp génn néeg su may mbokk yëpp nañ génn xam nga ku njëkk ci néeg bi jàlla jàllaluhu laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah mu ne may leen ma waxtu nit ñi soog a dugg Mawlaana Jalla Jalaaluhu mooy ñëw su génnee kuróobi yi nañu ñëw su génnee malaul ahla ku ku ñëw rek ne allahumma salli ala sayyidina muhammad mbokk wari na fa ne taalibe bi lu mu doon lu mu foor foor ci sëriñ bi fii ñu toog ñun ñi nekk ci ay tariqa ku ci génn àddina bu su sëriñ dikkee mbokk yi buñ ko waxut sa taalibe ngoog moom ñëpp a cayam loolu am na wala am ah lu mu ca mbokkee ñoo ko sant kon nag lii nga xam ne ci lañ njëkkee lii nga xam ne moom ci la ñoo mujj nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla defal ñu sutura e, lu dul doy yaakaar naa loo ci rek baax na yaa am na ay gan ñu ñëw war a sànni seeni kàddu ñu may leen kàddu e, la yonent bi nag waxoon moom laa leen di wax keroog xasuwutu mu nay nin waa Medina la àndal xare ba yàqu ci njëlbeen bi xare bi yàqoo ci njëlbeen nabil Moustapha mujj gañe ana ko génnee woon waa mag waaye fekk na am na lu waxoon waa Medina sannoo bi annahu daana safa yaxsuluhum aw saadiqan qaala inni hadmukum hadami kenn ku nekk am nga ndeeg bàyyi su ma baay maabo la dëkk bu baxee koo bañ baxee koo jolof bañ baxee koo maali jolof lañ wàcc bàyyi koo jolof suñ maam wàcc këwoon bàyyi koo këwoon dem lat menge bàyyi koo lat menge dem ndangaan bàyyi koo ndangaan dem sañc maabo maabu googu walla hendo husnul ma aadi la tuddoon maabu léegi ëpp na juróomi téeméeri at ku santul saaxo doo moom caaxu yi nag nekk ñett doom ji mag ji ñëw mu samp jox jumaa ji ñu ne caaxu ilimaan alaaji bu saaxu mais ci tëngee ca la bokk ki ci tegee ñëw mu sancloo ko dëkk mu péncoo garabu taba ñu ne caaxu taba ki mujjee dikk ñëw mu sancloo ko dëkk ñu tuddee ko caaxu sanc ñun ca lañ bokk caaxu ñetti façon la yépp ñu ngi bàyyi ko ci bakkar Saaxo waaye suma yaay fii la dëkk ku am day am nga bàyyi xam nga Nabil Moustapha lu ko yóbboon Taïf ay nijaay waaye moom yoonoo woon a doom doog maanaam suma yoon ah ndax kan la fa fekk Abdou Yadida ak Masoud ak Habib bankal sa baaraam Abdou Yadida Masoud Habib ban demee ci Abdou Yadida ne ko damaa ñëw fii suma kër ndey pour seet ku ma dimbalee ma jotal li ma yàlla sant Abdou Yàlla ko jàkk ne ko yàlla bu di yónnee am na ko la mooy dégg nga boobu tontu bu mu dem ci Masóor Masóor ne ko jooju wax dépensé na ma mu dem ci Habib Habib ne ko bu fekkee dëgg la gëmuma ko bu fekkee du dëgg man loolu suma ma yoon nekkut waaye nag doo yem fii e xale yi génne leen kii foofu lañ ko génne da ko sànni ba mu tëdd ci suuf malaaka mi yore doj yi wàcc laaj ko ndigal fala nabil mustafa ñaane ñaane ngurigu allahuma ilayka asko duux fa quwati wa xilata xilati wa anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustahzafina ila man takilu nii إلى عدو بعيد يتجهمني أم, أم إلى صديق قريب ملكت أمري إن لم تكن قد بانا علي فلا أبالي خيرا عافيتك أو سمولي أعوذ بنور وجهك الذي أدار لو سماوات وأسرق لو سلمات وسلا الأمر الدنيا والآخرة أن ينسل بي قدبك أو يهل بي سقوطك لك هربا حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله على ليلاتهم يعني جوجل يونتي بنيان ممكن ñaan googu képp ku ko ñaan tem di dëgg ci yow njàqare joo mën nekk yàlla dina la ci dindi moom la ñaanoon ñu ñu jël nag ji jikko booba foofu rek laa soxla woon dem na kër nijaay gantu nañ ko génne nañ ko mbugal nañ ko malaaka mi yore ñaari doj yooyu wàcc ne nekkoo jox ma ndigal ma dégg ñi fi ne xool leen loola laa di mujjee ñun ñëpp nañ jël loolu teg ko suñ kanam jégal na leen bankal sa baaraam ñaana mm-hmm. ah, ñaanal na leen mm-hmm. bu ko ñetteel mu layal leen ah. allah mu ihdi qawmi fa innahum laa ya'lamuun xam nga jégal na leen mm-hmm. layal na leen ne yàlla ñuy xamul ñaanal na leen ne ihdi yàlla nag leen jubal kon lii moom la mbokk soxla yàlla na yàlla def ñu ñëpp ñu gëm ko yàlla na yàlla def ñu ne koo jëfee jañal fi laa dëkk nit fu yaayam dëkk fa la dëkk jañal ak kumbal fi la suma yaay dëkk eh, te suma ngërmande du ma dañ de ko def ndax Ousmane mii eh, suma bés bii ma di defal suma baay am na ren ñeent fukki at ak ñeent ker samedi bii ah buñ ko commencé ak samedi jii te am na bés boo xam ni dañ def kër soosi ci guddi keroog moom usmaan mii kër soose la fanaan fii buñ ko daan def basang du fi fanaan ak Modou Kami am na benn bés boo xam ne Ousmane dafa ñëw kër soose waaw ma ne leen suba tey dama am gàmmu sookoon ak Aliou Cissé male ci ah, si ci si bale ku baax la tubaarikal ku bëgg lu baax la keroog Ousmane mii moo ma ne doo gàmmu ji manoo fanaan sookoon bët seen ngay recevoir say gan dama nekk bañ nelew Nasir mi wóor na ko gàmmu gee tey tànt bi ci kër Amady àddina bi yëpp mu fay nekk waaye dem naa fa bërki démb ne la neexul ba neexul waaye suma ma kër ndey dañ xew te mënuma fay conférence ba julli timis toppati guddi gi di ñëw ñu ne ma nag donte le cinq la boo fi taxawee ne asalaamaaleykum doy nañu waaye ma ne leen lu mën a am jeeñal laa de njëkkee su fa xëjee baax na su fa xëjut baax usmaan Ousmane képp koo jox sa bopp mu fay la bokk boppam buuñaa la ay mbokkam xam nga buuñaa dana ëpp njëg ba sóoratu bayaan wàccee nabil Moustapha daf ne kan moo ko jàngi ca Kaaba ga Abdoulaye ibnu Mas'ud xemoon nii ne maa koy jàngi ba ko jàngee Abu Jahlin pes ko nopp bi sànni deret mu ñëw wax ko nabil Mustafa mu ree mu ne ko lii nag mu ne ko nàccal na sa nopp danga nga mën a noppam keroog ba nga xamee ne julli ñett téeméeri fukk ak ñett abu jahlin nga xam ne ñaar fukki gëlimi sàngara ah moom moom la sëf sa naam lu al isrin dina men xam mu nga naan ay ah ulun xibaar ba mu bàyyi makka ulun hublun ulun hublun nabil Mustafa nga ana nabiyyu la kasib ana nu abdi mutalib ñett téeméer janoog junne yàlla ne jibril préparel préparel ker la malaaka ma sa wàcc ker la ma sa malaaka ma sa xeex jibril mu ngi waroon fas wu ñoo xay soom malaaka yëpp kaalawu kaala yu weex jibril mu ngi jël kaala gu soon moo jiite bataay bi mu nga war fas wa nag naan ko aqdim yaa xay soom mu musooni malaaka yëpp keroog dégg nañ waxi jibril mu ngi dàq fas wi naan ko awaas awaas keroog badar julli dana topp yéefar ba ngaan jaasim gis bopp dagg fekk malaaka ko rey waqad samiha malaa'iku qawla jibril yaa hay soomu aqdim bil musooni ah wa doonahu moo xamaa imu wax ya bii dun ñoom ñëpp ngi kaalahu kaala yu weex jël mbicc mi fanale ko ci gannaaw da nga gis malaaka mu ñëw teg loxoom jullit teg loxoom ba biir fas bi laa du ci suuf si dana jubit jullit bu jullit bi ne laa ilaha illallah mu bakko ker la malaaka wàcc Abu Jahlin nag waa ñu jigéenu Hafra ñaari doomam ñoo ko rey ñoo laajte ni ki mooy kan ñoo ne Abu Jahlin ñu ne danañ ko rey wala mu rey ñu ñooñu ñoo ko ñoo ko engagé ba si ko mu tëdd ci suuf Abdullah ibnu Mas'ud fekk ko fa fekk nabil Mustafa noon na ko nàccal na sa nopp da nga bënn noppam Abdullah ma soot fekk fi Abu Jahlin mu daal di tëpp war ci kawam war ga dafa jafe Abu Jahlin xool ko ne ko laqad taqayta marqan sahban yaaru wàññil xanam toog nga foo xam ne fu jafe toog la yow doo dara sàmm gàtt nga rek faalihuma la Abu Mas'ud ne ko ma ma ma ma ko al yawm tey lan mooy sa place lan mooy sa position mu ne ko danaa génn àddina bàyyiwuma ko mu bàyyee ni ko ma bañee Muhammad danaa dem àlaaxira bàyyiwuma fa ko ma bañee ni Muhammad Abdullah ibnu Masud jël jaasi ji mu ne ko sa jaasi jaasi sàmm la su ma jaasi ji nga xam ne xaalis sa wurus lañ ko tëggee jël ko nga doge ma mu jël jaasi ja dagg bopp ba àttanul bopp bi mu bënn bopp bi nas ci buum diri ko ba ci kanam nabil Mustafa nabil Mustafa ne ko naccaloon na sa nopp nga bënn noppam bi arasu si yàlla bopp bi buuñaa la mu ne ko bopp bi buuñaa la buuñaa dana ëpp njëg moo tax nañ de naafila la mooy buuñaa naafila du bon gis nga suba boo jëndoon ci pañegul fukki kilo dañ la buuñaa waaye gis nga kilo yi ngaa jënd doomu lax nga delloo doomu xar nga delloo waaye buñ la buuñaa kilo doo ko tàmm naafi ngoo allahumma salli ala kon nag euh, sëñ Ousmane wallaay xam sumay doom caaxo euh, kër laayin saaxo midi ba léegi maa ngi wax conférence laa yendoo tey waaye xam ngeen ni lii yéen la waaye du du lu ma man waaye nag jëñal su ma manee def su ma wanut jéem waaw bismillah kon jërëjëf sëriñ bi kontaan na te nañ waaye liñ la mën a kontaanloo ñun itam rek mooy ñu taggal la sa baay kon ñu ni tamit waaw baay jooju moom la ñu siyaare samedi bi passé mu nekk ñeent fukk ak benn daara alxuraan ji ma ko tabaxal samdi ji lañ ko doon ubbi fexe nañ daara ji nekk na ab étage boo xam ne tubaarika la mënuñ ko fay bor ndax baay jooju dafa bind kaamilu alxuraan njëkk suñ juddu utal ñu tur Cheikh Umarul Fuuti bind